ko monsieur le sous-préfet tënk nag ci lépp ci diggante euh, pompe yi muy muy service d'hygiène ci produit bi noonu mu ko waxee bu ñëwee ñun danañ leen dañ leen daan appuyer ci carburant bi ngir que mu mën a traiter barab yi nga xam ne yépp nit ñi dañu fay daje loolu aussi commune bi ba taxaw na ci pour def ko ci vidange yi Euh, at yi yëpp ñaari at yi dafa am tuuti problème ci ci euh, da ndax dafa doon tombeek euh, njeexital année muy am budget ci ONAS commune bi moo daan jël en charge lépp pour vidange yi comme ni ko alaaji waxee cent soixante voyages mais à partir de tey alaaji jeudi muy gannaaw suba ba le vingt sept loolu oto yi ñu ngi ci disposition commité de organisation bi bët bu set danañu def six voyages oto yaa ngi nii danañ ko carburé danañ ci def lu mu néew néew 1500 litres gasoil oto yi commencé à partir de jeudi maanaam ba le 20 le 28 la ba le 27 le 27 nag màggal gi après dana dëkk bi dana xat dootu mën a liggéey loolu ñu euh, mettre nañ ko à disposition des des des comités de organisation bi. ci éclairage public bi ko wax naa ci léegi li nga xam ne mooy euh, réseau. moderne bi électrique moderne bi bu commune bi loolu da liñ ci entretien yëpp danañ ko def li nga xam ne aussi mooy réseau Sénélec bi danañu ànd ak Sénélec def entretien bi yëpp ndax li am na tuuti ay accident ci ci survolte yi nga xam ne mi ngi koy def loolu ñu ngi ñu ñu ñu ñu ñu ànd ko pour changer surtout périphérique bi nga xam ne lamp yu bees yi ñu ci monté yëpp dafa dafa am danay am am na ci yu am jafe-jafe loolu aussi ñu ngi ci opération mbale mi aussi danañu ànd ak UGC jox am na commune bi le logistique bi mu yor ci diggante pelle mécanique ak euh, camion yi ak euh, petit ak personnel bi maanaam yëpp 52 personnes yi ak logistique bi danañ ko boo da ñu ngi xaar nu ngeen organiser opération mbale mi ñu ànd ko ak yéen bu fekkee ne dañ ko def li nga wax dañ ko def par secteur muy grande mosquée Ndindi ak euh, Aliya bu mu ci mën a doon rek danañ fas ànd pour liggéey ko ba mu ba ba mu jeex ak ICC ak comité de organisation bi mu des lu am solo euh, muy sécurité publique diggante police ak gendarmerie ci ni ñu war a defee opération yi ñu war a def commun yi nga xam ne barab yi nga xam ne way bu ñaawtee fii ñi ngi fay nekk Modou Diop Diaw ba wax na ko léegi yooyu aussi ñoom ñu def naa ne sous préfet dana woote sécurité euh, réunion de sécurité ñu ànd mën a dëkk bi ba mu set balaa gan ñee ñëw ngir ka barab yi nga xam ne yëpp war nañ ko nettoyer ñu nettoyer ko commune bi aussi dana ci ànd ak ñoom di leen appuyer ci carburant waaye di leen ab appuyer ci logistique boo xam ne nii danañ mën a euh, seetal seen liggéey loolu daal mooy li nga xam ne ci li ci des nag mooy mi ngi dépendre ni commune bi naan def danaan dépendre ci comité de organisation bi mais bi yi nga xam ne day ñëw di ay conséquences wala ay jafe-jafe yoo xam ne nii day ñëw te kenn limaaliwu ko woon wala nii lañ ko xalaate woon mu demee nii bu ñëwee ñu soumettre ñu ko ñu ànd ak ñoom fexe ba régler problème yoon yooyu loolu daal monsieur le préfet mooy taxawaay bi nga xam ne mooy la ci commune bi taxaw comme li ma ubbee woon wax ji rek moom moo ku ñëw ci nga ko war a fekk ku dem ci nga ko war a bàyyi sëriñ bi daal loolu mooy sëñ Amadou nga loolu mooy li nga xam ne mooy li ñu ci taxaw di di déglu ndigal li rek ànd ko ak comité comité de organisation bi ak chef service yëpp ci ndigalal su préfet ci lépp loo xam ne loo loo lu bis bi soxla la te aaji woo ko teñ war koo def loolu ñu ngi taxaw tem ci def ko jërëjëf jëf monsieur loo am laa amoon ci lu ma di wax di déglu na comité de organisation bi ci loolu. lépp loo xamante ne bii taxawaayu état la ñu mën koo matale ci bés bu am solo boobu nga xamante ne bii moom lañu jëm comme ni ma ko waxee woon ci sama ubbiteefu waxtaan li ñu taqale ak bés bi daanaka matatul weer xat-xatu jamono peut-être moo taxoon ba. mënuñu woon a woote réunion bi waaye bu fekkoon ne du xat-xatu jamono yi ñu génn daanaka réunion bi dañ ko doon woote daanaka ñaari weer avant bés bi waaye nag euh, alhamdulilah donc yàlla def na xat-xat yooyu weesu na kon nag jamono jii ñu toll nekkatul jamono yu waajal bés bi waaye jamono yu sóobu ci bés bi la sóobu bi mooy lépp loo xamante ne bi service war na koo taxawee mu xam ne amatul bés boo xamante ne bi war na toog te du si liggéey loolu nag ñu ngi leen si ñaax yéen ñëpp dinañ ko saytu nag saa su ne ngir li nga xamante ne bi mooy sunu taxawaay lépp mat euh, la koy jagal nag toujours man dama koy wax bu ñuy waajal bésu kilifa bu toll nii la koy jagal nag xëj na moom weesu nañu ndax euh, yaakaar naa borom bés bi si boppam mën na wattu bésam waaye nag di sant yàlla bi ñu si yàlla boolee ñu mën cee jëf lu toll si farat te tarafatal ay ni loo xamante ni bii dina tax ba ñu dab mbégteem waaye itam dab ngërëmam donc loolu euh, yaakaar naa ne ku si nekk si ñun ci wàllu état war na war na bàyyi xel loolu xam ne bés bii kat li li ko war bu ko si defee dina wàccoo ak li état di xaar ci moom waaye tamit dina wàccoo ak li Serigne Mouhamadul Fadal nga xamante ni bii ñu ngi koy dàkkantalee borom mu am mu am donc moom dina dina dina dab maanaam ak ngërëmam te yaakaar naa ne ngërëmam war na mën a jural jullit bu nekk lu raw njortam donc daal loolu lay wax sama naataangoo yi ñu bàyyi xel bu baax bés bi ñun bu ñu génnee fii lépp loo xamante ne bii war nañ koo def ci wàllu ay correspondance ngir waajal la nga xamante ne bii mooy CRD bu gouverneur war a jiite ngir buñ fa yeggee lépp loo xamante ni bii ay bëgg-bëgg la fekk ne réglé nañu ko ba pare nga xam ne CRD boobu day ñëw rek mën a constater maanaam engagement yooyu donc dinañ ko def incha rab yi fii ba le 28 bokk na ci suñu yitte yu gën mag. yoo xamante ne bi saa yu ñu xëyee su sunu bureau dinañ ko dinañ ko dinañ ci jëf incha allah rabbi donc di wax ñëpp rek nañu ñaan donc yàlla may ñu ñu fekkee te lépp loo xamante ni bi yéene comité d'organisation bi la bu ñu demee ba ca bés ba ba génn ci ñu am satisfaction totale sëñ bi loolu mooy li nga xamante ni bi moo ñu moo ñu taxoon a daje tey donc di la jébbal kàddu gi nga sànni si say kàddu waaye tamit nga ñaanal jataay bi. ba moom itam li mu bëgg liggéeyal sëriñ bi lépp mu man koo liggéey moom njaboot gi te na ànd ko ak moom. ñëw itam ci ndigalul ak Cheikh Mouhamadul nga xam ne moom itam mooy jëwriñu Cheikh Abdoul Fattah ñu indi nuyoo di ko teg ci loxo sëriñ Abdoul Hadka mi nga xam ne moo jiite barab bii ñu toog. yëkkati kàddu yu rafet yi nga xam ne yëkkati na ko ci taxawaayam ci dëkk bi waaye nag ci diggam ak borom bis bii di Cheikh Mouhamadul Fadil ñuy teg nuyoo boobu ci loxoom ngir mu tegal na ko ci loxo sous bi nga xam ne moo fi toogal administration bi di ko ñaan moom itam mu yëgalal na ko ci gouverneur ci ministre de l'intérieur ba mu àgg ci njiitu réew mi di président de la république di nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi di ci jiital Cheikh Ibrahim moom Cheikh Mouhamadunil Muntaqa ak Serigne Moustapha moom Serigne Moussa moom Cheikh Mouhamadul Bachir ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew kon sous-préfet la ñu bàyyi mu jottulul ñu nuyoo bi moom mboolem chef de service yi nga xam ne itam ñëw nañ ci jataay bi ak bokki jullit yi ak bokki taalib yi nga xam ne ñoo teewe jataay bi yëpp di sant bu baax moom itam ci kàddu yu rafet yi nga xam ne moom sous-préfet wax na ko fi ak yittewoo goo xam ne itam am na ko ci bis bi ak ci waajtaay bi di yëkkati nag kàddu ci turuk Cheikh Abdoul Fatah ni ma ko waxee mu jëm ci bis bu tedd bu sell bi nga xam ne mooy bisu rajab di bis boo xam ne mooy ci la al isra wal miraaj xewe woon di bisu lislaam nga xam ne dañuy wax ne kemaan wala karaama wala tedd nga ji gën a mag yi nga xam ne sunu borom subhaanahu wa taala defal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ci gën a rëy ci bis bii la ko ko defaloon mooy al isra wal miraaj ci loo xam ne it mësuñoo gis ku ko borom bi subhaanahu wa defal di bis boo xam ne mooy bisu lislaam ndax ci la borom bi subhaanahu wa farataale woon julli jox ko sallallahu alayhi wa sallam muy ab sërice boo xam ne ba mu demee ca tukki bu màgg bu sell bu tedd boobee mu teral ko teraanga joo xam ne mësu koo teral bedd mbindéef bi mu ñëw du ko joxale ab sërice mu indaale ko ci aw xeetam muy julli juróom bis boobu kon moom la ñuy màggal muy bis bu jullit yëpp bokk mooy bisu lislaam waaye nu am ci na xew-xew boo xam ne xaas la ngir ñun murit yi muy Cheikh Mouhamadunil Fadil ci la feeñoon jamono moom ci boppam nag moo ko daan màggal waaye wootewu ko woon moo ko daan dundal kon mën nañu wax bu bis bi ma saa ñëw mooy dem jóge tuuba dem Daaru Salaam ca mbokkam ma xaritam ba Cheikh Mouhamadul Maamoun am fa jataay bu yaatu ak moom fanaan fa bu xëyee jaar ci kër magam sëriñ Afiyatu Ahmadu Ñang nga xam ne moom itam mooy magam dundal fa bokk dundal fa lislaam siyaare soxna Xawa mi nga xam ne mooy waajuram soog a dellu ci këram ba yàlla dogal gannaawam nag la ko cheikh Mouhamadul Moustapha Fadil ànd ak ak njabootam ak ay rakkam cheikh Mouhamadul Amin nga xam ne moom bis bi fa dugg ci bisam moom cheikh Mouhamadul Amin ak cheikh Abdoul Fatah mi cheikh Mouhamadul Bachir cheikh Abul mi nga xam ne mooy cheikh Mouhamadul tey ak Serigne Mourtada ak Serigne Mamor mi ñuy fàttaliku di ko ñaanal moom itam ñoom ñoo ko daan ànd ak Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadilou di ko dundal Cheikh Abdoul Fatah nag naka jekk mooy jëwriñ ji léegi nag mu dox ñu ndigal ne nañ ko fiy teewal ak sama kilifa gii di sama mag Cheikh euh, Serigne Cheikh Oumy moom Cheikh Mouhamadou Fadil kon bis boobu Cheikh Mouhamadou Fadil moo ko daan dundal waaye nag Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadil moo ko ko wooteel ànd ko ak rakkam yooyu ak njabootam gi ak bokki taalibe yépp kon bisu lislaam la bisu ñëpp la bisu taraanga la bisu yërmande la bisu ñaan la bisu delloo jukkal borom bi subhaanahu wa la bisu jaamu yàlla la bisu nafaraat lislaam la ndax ci la lislaam wàccoon ndax ponk bi gën a euh, dëgër wala bi gën a mag ci lislaam muy julli bis boobu yi ci la ko borom bi subhaanahu wa taala joxe woon yërant bi sallallahu alayhi wa mu doon doonoon juróom fukki julli ñu waroon ko def ci bis waaye ci yërmandeem mu di ko wàññi ba muy doon juróomi julli waaye ku ko def ni nga ko war a defale ni nga ko war a defee borom bi subhaanahu wa taala jox la yoolu ku def juróom fukki julli kon buñ ko dee waajal ñu tase fii tey ngir waaj wàll gi nga xam ne administration moo ko ci war a taxawee su préfet wax fi wax ji nga xam ne moo chef de service yi fi nekk yëpp tënk boo xam ne mënatuñ cee teg lu dara lu weesu rek sant ci li weesu woon te am yaakaar ci ne lii ñëw incha allahu taala dana dox nam daan doxee te niñ koy séentoo danañ ko mën a defee noonu ci kàttanu borom bi subhanahu wa ci barke borom bis bi waaye nu xam ne rek bis la boo xam ne at mu jot dañ ko war a dogal mbubb mu yees ndax day màgg kon nag lu ñu waajoon daaw waaj ko daaw yéeg ren nañ ci yokk lu baree baree bari te xam ne incha allah noon lay taxe eh, di santale Cheikh Mahamadul Fadal itam boroomam subhaanahu wa taala di ko santal Cheikhul Xadim mi nga xam ne moom dafa seeyoon ci biir sëriñ bi waxoon ne moom du doom ju bëgg a donn baayam du taalibe bu bëgg ñu seexal ko dafa bëgg a seey ci biir Cheikhul Xadim radiyallahu anhu rek fu mu jëm jëmee ko fa waaye ku ne xam na ne bisam bi itam nii mu toll tey sunu borom daf ko ko fayee ci bisu màggal gu mag gi nga xam ne moo ko woote woonal Cheikhul Khadim radiyallahu anhu sëriñ bi ci boppam moo ko digle woon moom Cheikhul Khadim wax ne bis bu ñëwee kenn ku nekk loo man nag ma ko def santale ma ko borom bi subhaanahu wa ci tàmbalee ci ganaar ba ca gëléem waaye nag Cheikh Mamadou Fadil moo ko wootee na Khadim radiyallahu anhu fii ci Touba waxoon nit nañ ko daan defe ci jàng alquranul ci jàng salaatu ala nabi ci def istixfaar ci tudd yàlla ci jaamu yàlla ci jokku bokk ci ci ci ci ci ci teral teralante ci joxe ngir yàlla ci siyaare nit ñu baax ñi fi nekk ci siyaare way daw lii fi nekk ñaanal leen noonu la waxoon ne noonu la ñuy defee màggalu Tuuba te moom kon mën nañu wax ne sëriñ bi da koo fayee Kazu Rajab ci woote gi mu wootee loolu Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu màggalu Tuuba kon dañuy wax ne rek noonu mu waxoon ca discours ba mu def ci màggalu Tuuba mu ko noonee kon la ñuy delloo si waat wax ne noonu lañ bëgg kon ñu màggale ko màggal gi ñu jëm muy màggalu Kazu Rajab di sant mbokk yi fi teew yépp di ñaan ñu fekke ko jàmm tey wax ne ci turu sëriñ bi Cheikh Abdoul Baraka jaar ci Cheikh Abdoul Fatah nee na képp kuy ñëw yaakaar yoo am na nga ko diis borom bi subhaanahu wa taala indaale ko fii ci bis bi te xam ne fii sunu borom du fi tase yaakaar Cheikh Mamadou Fadil moo ko daan wax kon fépp fooy nekk na ko waajal te xam ne ak defaroo fi nekk ak dolli fi nekk xéewal la fi nekk nangu ñaan a fi ne te borom bi dara tëwu ko tëlewu dara te lim yor da koy joxe te ku ko ko laaj rek la bëgg kon nañ maase ci ñun ñëpp ñëw màggal si Kazu Rajab te te indaale sunuy ñaan te gëm ne lu nu fi ñaan sunu borom subhanahu wa dana danañu ko danañu ko danañu ko defal. waaye niñ ko daan gasandoo itam mooy buy ñëw ni ma ko waxee rek noonu sëriñ bi waxoon ne moom la ñuy màggale Tuubaa tey baaxoo ko def di ci fàttaliku sëñ Mamor sunu mag jooju nga xam ne moom itam di sunu kilifa loolu ci loxoom moo ko daan moo ko daan waajal muy njàngum alxuraan bi njàngum alxuraan bi kon jàpp nañ ne bu bis bi taroo rek fépp fu waay lu mu mën ci jàng alxuraanul karim lu mu mën ci jàng tudd yàlla lu mu mën ci jàng xasaayitu Cheikhul Xadim lu mu mën ci jàng def salaatu ala nabi lu mu mën ci istixfaar na ko def te di ko yéene Cheikhuna Mouhamadou Cheikh Mouhamadoul Fadil waaye di ko def addiyee Cheikhul Xadim ndax moom ni ñu ko waxee amutoon dara léppam sëriñ bi demoon waaye ñu def ko tey yéene ci mboolem mbokk jullit yi def ko yonente bi addi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw sëriñ bi itam wax na ne euh, tawat yi nga xam ne moo fi nekkoon ba gàllankooroon ñu ñaari at yëpp defuñu ko te tegoon ko ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax xam nañ ne kër sëriñ Fallou këru ndigal la bu ndigal jógee rek dañ koy dal di jëfe ñuy ñaan yàlla jële ko fi nag ndax fi ne xam nañ ne wàññi ko na mu ñaan yàlla jële ko ci Sénégal jële ko ci àdduna bi waaye kër docteur wax nañ ne ba tey nañu sàmmonteeg li nga xam ne daawoon nañ ko sàmmante bu njëkk mooy ci takk masque yi ak ci ci ci mesure barrière yi ni ñu koy waxee ak li ñuy laal ci loxo yeeg lépp loo xam ne daal kër docteur wax ne na nañ koy jëfe sëriñ bi nee mu ngi koy fàttali mbooloo mi ñu jëfe ko ci ñu jëfe ko ci màggal di sant di gërëm di jégalu nag ci bernde yi nga xam ne jàpp ñoo ne waxtu wi dana yegg si fii loolu moo tax waaye kon doon nañ ko waajal ñu ngi gërëm di sant di jox euh, sëriñ Cheikh Oumy moom Cheikh Amadou Fadil mu defal ñu ñaan نهما شيخ فالو شيخ فالو لاي كسو رجب اكرمني يو نك yow li ci digal mooy danga ma daa bind bataaxal li ma li ma nee na maa bëgg a liggéeyal ka dem ko wax salam ni nga noonu kazu rajabin akramani yàlla mel ku bëgg a dem tegal ci yow ngeen ngeen ngeen boo xam ne amul pakk amul dégg amul pax ma ko waxoo ci rek ba liggéey boobu boo demee parce que loo mën ak loo mën kazu